Marca yëglekaay dikk na ci crise bi nga xam ni ak scandale yi am ci wàllu football bale ci sax ballon d'or bi nangu koo bàyyi fële ca Espagne tamit gis nañ fa journal ba nekk ca Barcelone moom it yaakaar naa ni dikk na ci li nga xam ne tamit daanaka mooy hold up booboo nga xam ne gis nañ ko yëglekaay cuqur mbuuj na dégg na jàmm a tey danañ ko tas mere ngay supporters yi catalan yi maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm di wax catalan yeeg mere nga yàlla bu ñu réeroo mu am solo bu baax a baax ma sàkku ci abonnement yow mii di ma door a dab coppati ko ndànk ndax abonnement yooyee boo ko defee ci seen bii day tax lu ma dugal rek mu doraate ci sa kanam gërëm naa ñëpp sant leen ñëpp nag di leen waaj loo match bi war a am le premier décembre supporters yi Barcelone ak yu merege El Hadj Malick bi tëgg ko ma Mañang Reus nekk kii di invité d'honneur boobee nga xam ne sax dana coppati mbégteem kàddu ya muy yëkkati sax dem mi jamono dañu leen ko indil licenciement bu ki nga xam ni moo nekk ak euh, teng di ab entraîneur bu Manchester United balaa yëglikaay yi ñu xaw leen cee wax tuuti nag ndax moo moomee dan koo daq waaye nag lanu ko jox ci alal bari na toll na ci dix-huit millions de mu bari lool di yoo xam ne nag xam naa ne fa doxee doon milliardaire ndax moom moomee kat la mu doon fayeeku bari na waaye nag lanu ko war a jox ci xaalis 18 millions d'euros boo ko boolee ak entraîneur bi nu war a jënd lanu ko jënd rek congé libératoire am dangay am vingt huit millions d'euros ci loolee ci benn entraîneur ma jàpp ni xaalis boobee bu ñuy wesaare nag xam naa ni Mouhamed seen foot seen équipe bi euh, doy na waar ndax lii nag fi mu nii du management du affaire gentleman man mënoon nañ jël rek ci topp ñu daal di koy toftal bu ko defee wàññi salaire am bu baax a baax ndax. ndax wen mister la rey mën naa bañ a laaj alal ju bari. as ah, yëglekaay mënees na ko commencé yëglekaay bi nga xam ne yaa naka ngeen gis ni ah, ballon d'or bi nga xam ne Espagne gi yëpp ñu ngi kiy wax gis nga as maanaam mi ngi koy yëkkati di wax ni euh, ballon d'or bu Espagne bi yëpp la mën naa koo jëlee ci ñaari côté mooy ballon d'or bu Espagne bi dañ koo ñàkk euh, euh, ki nga xam ne mooy Vinicius Junior mais ballon d'or bu Espagne bi yëpp tamit mën naa si nanoo jàpp ni ni mu ko ki nga xam ni moo nekk Rodri ci beneen côté bu positif bi laa koy jëlee kon ballon d'or Espagne mooy Rodri milieu terrain la ca équipe bala Espagne bu fekkente ne jël na ballon d'or la war a doon ci képp koo xam ni yaa ngi nekk biir Espagne mu nekk kàddu yu rafet yoo xam ne as ah, yëglikaay sama turandoo xam nga ni sama turandoo rafet la ngi lay wax lu rafet lay bind loole tamit nekk lu ama am solo ginnaaw maanaam euh, taw bu lóor bi manees na ko wax an bàq bee ci des ndax li xew-xew na ba pare kon ñëpp nanu kolewu euh, ji ay espagnol ci ki nga xam ni moo nekk Rodri ndax seen doom la te espagnol la tey ku am yar ak teggin la ci li nga xam ne mooy terrain ku am yar ak teggin la ci li nga xam ni boo ko gisee muy doxal ci wàllu euh, football kon loole mérito na ko mérito ko moom la ko gars yi jox Espagne la Espagne ci gagné Espagne na ànd doon benn yëglikaay bii di Marca moom li mu ñëw crise bi nga xam ne maanaam moo am la jàpp ah, ci li nga xam ne daanaka moo euh, nekk ci ballon d'or bi xalaatuñ ko woon nag ndax ñoom dañu préparer woon li nga xam ne mooy seen ballon d'or te gis naa ne maanaam foofee ca Nike mi nga xam ne mooy marque bi yor ay dàll fële euh, ca Vinicius Junior ak gox yi fasantikoo yi ne ci Real Madrid marque boobu xam ngeen di préparé woon na ay dàll yoo xam ni dàll yu jar presque ay millions d'euros yu bëree bëri ngir mën ko teg ci loxob Vinicius Junior tamit moom mi préparé woon juróom fukki nit euh, fële ca Espagne kenn ku ci dem war a am teranga bu siq ak yow Vinicius Junior mu préparé woon ab dëkkam ñoom ñëpp di préparé Madrid di belle dëkk bi ak Vinicius war a teg ballon door yee refer beeg fomp yi xam nga tey loolee yaakaar ju la moo tax tamit ñu dikkaat ci xam ni nekk lu métti la waaye yëglikaay yi nañu bàyyi nag ballon d'or bi te jàll ci leneen baneen yëglikaay boo xam ne nag mi ngi nekk kile di euh, Mondo wala boog Esportu nekk ca Paris euh, ca euh, Barcelone ridicule mondial la dikk te ko ci taaba ci xam ngeen ni nag bon fi mu toll ni ci wàllu football moom coow li bari na lool kii ngi xëcc jëm fee kii naa nii la demee kii naan nee la demee moom it yëglikaay bi ci suuf ginnaaw loolu wala ca kaw andina na Olmo mi nga xam ne match bii ak euh, Gavi war nañ caa nekk ca biir ca mbaxloo ba maanaam onze de départ ya mën nañu caa bokk kon Barcelone dana commencé jotaat nag Olmo mu war a départ di njool mu tooy nga xam ne kon moo nag gars yi nee naa leen dafa am caay-caayu football loolu tax mu doy waar caay-caay googu nag xam naa di ngeen ko commencé gis gars yi waxoon naa leen ko ci ndorteelu championnat bi ngeen baal ba mais nee naa leen championnat Angleterre mooy championnat bi gën a prolifique mais Espagne nag tey jii moom ren dafa jël maanaam euh, Angleterre dar ngu ko dar ngu ko dar ngu ko maanaam ni ko tàpp tàpp taatoo maanaam topp ci ginnaawam sus ko rikk na fi mu toll nii def ko nag du yomb mais fi mu toll nii championnat Espagne match boo laal match la ndax Barcelone ku muy man di footballal ñëpp a koy seetaan ndax football bu rafet bi ni football ak gone yi seen taxawaay Real Madrid ku muy footballal gars yi danañ ko seetaan ak Mbappé mais dem ba ci sax Atlético mi ni dóor di ko dóor dóore day am ay maanaam lu muy yokk ci wàllu football maanaam instant bi football espagnol gars yi fi nii bari na ñi nga xam ne ñu ngi koy topp Mundo Deportivo moom la ñuy euh, jeexale Mundo nag xam naa ne li ma laal bëriwul gars yi ngeen jéggal ma moom nag dafa indi trophée yu bari yi nga xam ne euh, Espagne am nañ ko maanaam jigéen ñi seen ballon d'or bi ñoom ñoo ko moom meilleure équipe jigéen ñi ñoom ñoo ko moom ñoom ñi nga xam ne ñooy gone espagnol yi nekk fële ca Barcelone ndax lépp Espagne moo ci gagné ñëw tamit ci gi nga xam ne moo nekk Rodri mi gagné ballon d'or loole tamit am solo bu baax a gaax gaa yi yëglikaay yi la woon ci seen euh, euh, télévision bii di Aladji Malick TV ma gërëm leen sant leen ànd bek ñun am na solo ci information yi ngeen fi taataane ànd boobee yàlla na jëm kanam kontaan naa ci ñëpp bégg leen di wax ni yow bi may topp ba heure bi man ngaa abonné ci seen bi ndax abonnement boobu beneen tax lañ dugal nga mën ko am